bu baax a baax tey nag fi ñu nekk kenn du leen ko présenté ñu ngi fii ci Grand Yoff ñu ngi fii ci terrain gaal gi Jaks production moo fi woo amateurs yi ak mbër yi wante li ci gën a neex mooy 2 millions 500 la leen tëggal la leen tegal xam ngeen ne ba làmb ji tëjee ba ba léegi toll na ci at tëgguñu làmb mbër yi bëriwuñu amateurs yi seetaanuñu làmb reporters yi kenn reporté wul ñëpp nam ñëpp daal di namm làmb tey jii nag ñu ngi fii ci Grand Yoff fas yéene leen a andil làmb ji lépp lu fi mën di am rek incha allah da ngeen koy am ci ni mu leen neexee ma ànd ak sama caméraman bi nga xamante ne bii mooy mañ mañ caméraman dañuy ànd dugg ci biir làmb ji xool cali waxtaan ak mbër yi su ko defee nga xamante ne bii ndeysaan dara du leen ump ci làmb ji maa ngi jàkkaarloog benn champion champion nuyu naa la. sant bu baax kay. tur bi nan la. waay Sangomar. foo jógee. maa jógee ba Dalifor. yaa ngi jógee. Dalifor non pour jël poids léger rek. jël poids léger bi. waaw yam damaa toog ay at ay at mënuma bëre quoi. na mën nga lam. non loolu sax daa ëpp quoi. tey lu yaram yi yëg. non wallaahi wallaahi kontaan ci yow rek. ci kanam. ok jaajëf. jël na benn butéel tuura kooko jaat beneen butéel daw. ay ku ñu ci làmb ji daal. ardo ngi noonu. bañ da ko gu xonq la yoro wallahi teg butéelu ndox ca kaw. Père Manga gi noonu roi des arènes ngi noonu table technique baa gi noonu table technique baa ngi noonu tey nag mu mel ni dañoo organiser affaire yi ñaare catégorie yëpp muy poids lourd ak poids léger bu ci nekk 32 litres la ñuy jël bu ci nekk 32 la ñuy jël poids léger 32 poids. maa ngi lay fay oui maa lay ziar bu baax waa gis nga. namoon nga lamb. namu ko torop. tey lan ngay yëg. waa lu bari laa di ñaan yàlla rek. jàmm ji yokku quoi. dara bañ fee amati lu mel ni corona. tey noo gisee lamb ji. neex rek neex rek parce que mbër yeeg amateur yi ñëpp a namu lamb. yi mën a xaar ci yow tey lu bees. waaw bari na bari na ba mënuma ko lim. waaw. kon ci kanam. merci beaucoup jaajëf. oh ëpp léegi noonu Ibou Ndiaye toog na uuf calga uuf na lu tolloog téeméeri butéel ak juróom-ñeent fukk juróom-ñeent kookoy Ibou Ndiaye Obli mu ngi sol benn mbubu drapeau États-Unis d'Amérique mañ li may gis nii dafa mel ni kuur gu ñu samp la mañ kuur gu ñu samp a ngi noonu loolu la ñuy wax ay xamb soo demee ci dëkk séeréer yi buñ lay sang ca xamb yàlla lay sange dafa bu Malika o oh! ma nga gàlloo genn sangoor waaw waaw jëlal ma li mu takk ci loxo bi man jëlal ma li Malika takk ci loxo bi jëlal ma Malika li mu takk ci loxo bi mañ oo cay lamb waay lamba doy waar sama cameraman champion noonu xale boobu moo génnee lamb académie kooku may Cheikh Tidiane Niang le grand champion ma ngay sëlmu waaw waaw ña koy sottil ndox ma ngay sëlmu moom Cheikh Tidiane Niang ay waay tey fii ci terrain gaal gi waay Cheikh Tidiane Niang ña a mujjee dajeeg moom fële ca Fass Ndiaga Coy ca combat bu rëy ba mu bëree woon ak Doudou Sané ay ca Mansour supporter yaa ngi noonu Mansour nee naa la ñii tax ñu naan làmb ñii ñooy teel a tëj seen i place dagg billet bu seer ñëw teg ñëw toog di seetaan làmb Mansour nee naa la làmb suñ koy wax ñii ñoo tax ñu naan làmb amateur yaa ngi noonu dañoo namoon làmb nag wante yaakaar naa ne tey jii daal dana dundaat làmb bu baax a baax trop trop trop vraiment namoon nañ ko yàkkamtoon nañ ko trop. tey bi nga làmb ji lu yaram yi yëg. ah. bi nga ñëwaatee ci làmb ji yaram yi vraiment yaram daw na yàq des ndax cosaan rek la ñu xam lamb rek la ñu am moom bañ nañ ko ba ne le de chez nous Sénégal tey sport bi gën a fës sport bi gën a am yëg-yëg mooy lamb waaw lamb moom vraiment li daal yàlla dem kanam. yàlla dem kanam te feebar bi jóge maa ngi lay ziar sant yàlla alhamdulilah waaw trop waaw bon am mbégte rek am mbégte di ñaan yàlla aussi li fi nekkoon boo empêché loolu yëpp am yàlla jëloo ko ak jàmm di ñaanal li fi aussi yàlla xaare na arjana waaw vraiment xam ne aussi vraiment namoon nañ ko daal waaye sant yàlla lu yàlla dogal la waaw. sant baax. bu baax a baax a baax non sant yàlla rek ak euh, am courage ñu ubbi làmb ji rek ñu ànd ak discipline am ak ànd ak yar rek parce que affaire yi jafe woon na trop pour ñu ubbi ko mais ay nit ñoo jaar ci kaw ba ñu ubbi ko kon ñu ñun amateurs yi ñooy góor góor rek jàpp ci bu baax a baax ak respect ak discipline. bi ñu bi bi ñu sàjjee bi ñu sàjjee ndënd yi. Euh, mbayang way nga gis mbëri mbëri jaaju tey yaram yi lu lu lu mu yëgaat non sori la ma yóbbu ndax man làmb moom mooy sama culture moom laa gëm ma mënoon naaw sax ma naaw jëm si kaw waaw delloo ziar macha Allah mu mel ni namoon ngeen làmb yéen amateurs yi waaw loolu dëgg la namoon nañ làmb ji quoi aha affaire bi bi xamante ne gars yi bàyyi nañ lépp ñu tëggaat làmb ji tey instant yi gars yi ñoo ngi rafetlu affaire yi daal rafetlu nañ ko torop waaw sant yàlla rek xam nga alkaate mënta a bàyyi dóor ndax tàmm laago la dañuy féliciter Jax parce que bu ñu bokkee ci stafam yor ci euh, loo xam ne lu am solo la te saa bu ñu ko conseillé mu def li ni mel. toujours day gis résultat yu baax ndax nit bu baax day déglu te kilifa la kilifa dëgg day déglu waaye làmb nag ñëpp a lamb namul làmb parce que boxeur sax bu gisee boxeur dootul doon boxeur kon lamb loog tam bu fekkente ne dafa gëj ci lamb ja day mel ni daal làmb daal dafa dee un an et demi wala deux ans yoo xam ne kenn yënguwut kenn deful dara ñu tëj ñu ndax mbas mi la yal na mbas mi jóge li wóor mooy euh, gars yi namm nañu lamb waaye dañ gis làmb tey ñu ngi dal jàmm le président Bira Sène ñu ñëwee tey comme que yow ci staff bi nga bokk jël ngeen disposition yi ngeen war a jël yëpp ngir làmb ji tegu ci sécurité am na jël nañu géew gi fi nga xam ne dafa bëri woon ay xeer ñu def ko suuf boo ko defee mbër yi di bëri parce que sunuy doom lañu. ngeen ngeen yokk enceinte bi ngeen yokk ci suuf. dañ dañoo dañ cee yokk suuf te yemul tey est-ce que xam nga ne dimanche bii di ñëw dañoo tegaat mise u 3 millions ci Jax production. te dañuy dolliwaat suuf si. mais jag seen yaram dafa tàng. ci cinquante millions lañ jëm. ah mhm, wala lu ko ab te amul fu ñuy woo ci région Sénégal te demuñu fa tëgg lam fu ci gën a sori. pare ngeen pour def tour di Sénégal. le tour du Sénégal même buñ ñu mayee ñu génn sax ñu génn fekk si leen. jaajëf jërëjëf. sant bu wér a wér a wér. kontaan rek amateur yi namu lamb ñu namu lamb Sénégal namu lamb àdduna namu lamb. mel ni yéen tamit namoon ngeen lamb. a baax ñun kenn rawuñu te. bilaa walaay wa taalaay. bi ngeen toog yëgu dund dund leen lamb na ngeen ko dundee. mu métti woon trop mais nag sant yàlla liñ naan jaam ak pexem yàlla ak kon lu fi ñëw la wàcc fii kenn mënu ci dara dañuy toog muñ rek. mais alhamdulilah ba ñu ko teggilee uggul ñu suñu lamb ji sant yàlla bu baax a baax gis la sànq Ibou Ndiaye ñëwut mel ni mel ni ku lay menacé tapet la ragal la bërki démb lañ mujj Casamance ñu jox ko sama avance mu ruux moom bu gisee nit ñi lay yëngal mais moo gën a ragal ci lamb ji sant euh, ci enceinte bi lay leere waaw noonu la demee nak après fii lay leeree tey lan nga andi lu bees lu bokk rek la nga doon andi lépp lépp lu mbër indi rek indi naa ko lépp luy maye ndam indi naa ko ñaan yàlla suturaal moo tax mu mën a yëngal waaw mais dara lamb la ragaluñ lool noonu dañ koy dund ki koy dund ak ku ko dul dund bokkul Ndeye Mbacke nuyu na la waaw Ndeye Mbacke maa ngi koy fay jigéen bu baax la moom it ñu ngi rafetlu liggéeyam yàlla na jàmmam yàgg ok xewal bam nga jàmm sant Serigne Touba lan la yaram yi yëg waaw kontaan rek waaw ñun xam nga ay sportif gañ ay xaga gañ dañoo toog si liggéey quoi waaw moo tax tey xam nga te ñun lamb nga ñu dund quoi lamb nga ñuy bëggee loolu rek waaw waaw kontaan rek kontaan rek waaw sentir jàmm ak salaam xam nga pare pour wane suñu bopp incha allahu rabi. gis nañ la léegi yàgg général Malika. waaw incha allahu rabi. yàgg sànq yàgg général Malika lan la. waaw waaw waaw xam nga rek G sama gaañ la lamb ga rek dañuy neexal rek ay xale lañ dañoo war a wane suñu bopp. ñaata yoon ngeen bëre. bëri nañu ñaari yoon. maag moom benn bi dañoo match ni benn bi ma daan ko. benn bi dañu da ngeen a match ni. benn bi ma daan ko waaw. jaajëf champion. waaw jaajëf grand. ay waay gaal gaa ngi wàcc waay tere gaal ngi wàcc ba zéro booy faya ngoog oh borom drapeau chef de l'état jël na béjjën ba rendee gannaaw oh. vice-président commission contentieux et discipline CNG. tey noo gisee làmb ji tey. noo neex na tant que tey doo commencé. gars yi namoon nañ làmb bu baax euh, Jax production promoteur bu mag la ci lutte simple parce que lutte avec frappe la doon def après bi mu gisee lutte simple bi mën na fa yokk dara mu ñëw fekk fi ay moromam tam mais vraiment ñëwam ci biir làmb Euh, sagal na lutte simple ni ngeen def tey tam sagal na ñu parce que lutte simple lutte avec frappe bu amoon tey télévision yaa ngi wër ñoom yëpp ñu ngi fees fii del mais yéen amu leen xaj ak seen. ñun làmba ñu ñor. xeebu leen kenn xeebu leen lutte simple te waa lutte simple nag du ñu def xam nañ te ku fi ku fi jëriñu li ci làmb fii nga jaar wala nga xam ne se jëriñu ci làmb du yàgg. Yaxya Joob na ci lutte simple la fii la jaar. Manga 2 fii la jaar ñi nga dëkk ñi Modou Lo bëri na fii ak ñeneen ak ñeneen ak euh, lamb daal lii lañ gëm ñun te tant que lii ngeen gëm gëm nañ leen. jërëjëf. Eh, merci merci beaucoup merci. Bass Ndiaga Thioye ngi. waaw waxal waay. Lac Rose. gis nga ne maa ngi nii de. rakk namm naa la. gis nga fii la rawee baay. boo yaa mën a bëre. waaw gis nga. maa yaa ngi si jàmm. waaw maa ngi si jàmm bu baax sax. tey lan moo la andi gaal gi. waaw gis nga compétir si rek xam nga. fa seene ñaan yàlla xam nga ma jël ko yóbbu ko juwaalo rek. bëre nga sa premier combat. man waaw bëre naa sama premier combat daan naa ba pare quoi. yaa ngi xaar. waaw gis nga. deret bi rek mooy circuler quoi. deret bi mooy yëngu. waaw lamb suñ yëf la quoi buñ ci nee suñu deret day circuler normal. billaahi looy yëg. waaw gis nga. man instant bi maa ngi yëg confiance bu bari. billaahi ak war a jël lamb ji yóbbu ko juwaalo may ñaan waa juwaalo ñu ñaan bu baax. yokku ñaani bu baax incha allah damay jël. Leewtoo production war a ñëw Joal le 28 ak le 27 yaa ngi koy waajal. waaw gis nga ñu ngi koy waajal loolu fierté la si ñun quoi parce que xam nga Joal lañ boo jëlee laamu jooju noonu fierté lay doon si ñun quoi. jaajëf champion. Mhm. waaw delloo si yaar bu baax. borom maa ngi nii. <laughs> naka wu naka. sant yàlla lépp jàmm. waaw sant rek sant rek. tey loo andi. gis nga rek lambu la ñu andi. waaw waaw. lamb rek ba rek moo ma indi. namoon nga lamb. bu baax a baax a baax. yaram yi namoon na. damay ree rek damay ree rek. ah kontaan ñun lii la ñu xam <laughs> waaw. lamb dafa neex. bu baax bu baax bu baax. barki yonent bu baax bu baax la sport boo xam ne Sénégal ñoo ko yàpp ñoo ko bëgg kenn bañu ko loolu la na mu nag. tey gis terrain gaal gi. waaw nam namante ko ak ñi nga namoon tey lan nga yëg. bilaay kontaan ci rek kontaan ci dala ñaanal rek waaw seen télé bi gën gën a gën a gën a am doole. waaw jaajëf jaajëf Samb waaw maa ngi tudd waa oh, mañ mañ cal yaa ngi noonu Mansour cal yaa ngi noonu waaw waaw ñii ñooy ànd ak mbër yi ñii ñooy mbër yi guddi guddi ñu ànd ak ñoom fu ñu jëm ñu ànd ñoom xamewuñu sedd na xamewuñu tàng na xamewuñu gudd na xamewuñu naaj na ñi ñooy gunge mbër yi mais mañ daa mel ne am na mbër buy dugg si mañ jëlal ma ca porte ba mañ daa mel ne am na mbër buy ñëw mañ daa ne am na mbër muy ñëw Mansour sama caméraman a ngi noonu ay waay xoolal ma angle ba ma jëlal rek ay waay kontaan naa ci yow Mansour le benjamin des caméramans Boucar bu Lutte TV nuyu naa la waaw waaw Boy Faye nga noona ca biir ndënd ya waaw waaw mañ Mansour yaa ngi gis Boy fay ca biir ndënd ma ngay def ambiance ma ngay tàngal yaram ya ay ca mañ Cheikh Tidiane ñaa ngi noonu oh waaw waaw nee naa leen bi ndaanaan kullu fadrin la sant naa yàlla alhamdulilah lu bëree bëri bëri dama namoon làmb Sénégal mu bëgg samay supporter tey xoolal rek di nga gis bëre di nga gis yëngal te dama koy jël incha allah. may wax supporter yi. di leen wax ni namoon naa leen namoon nañ ma mais tey dinañ xam ne nam gi ma nam maa leen bëre di daan di yëngal muy neex ma jël làmb ji dem. bëre di daan di yëngal muy neex nga jël làmb ji dem yomb na waay Baye Fall. waaw lu yomb bëgguñu ko mais loolu lay demee mënuñu si dara yàlla noppi na démb tey soog a ñëw. foo teg loolu. si lépp gëm-gëm fit xale doole. Toubacouta. hey sama waa ji. Toubacouta. hey Toubacouta. ku baax maa ngi lay ziar. lii dañ ko namoon. man mi toog na un mois yoo na ne ma feebar ndax lamb wér naa léegi wér nga wér naa lii dañ ko manqué woon gis nga lii bu dee am chaque jour problème corona daf fiy jógee ñun Afrique lii lañ xam waxaatal loolu ma dégg man ñun Afrique lii lañ xam bégee ne buy am semaine bu nekk buy am toujours problème corona daf fiy jóge ñun lii lañ xam cosaan di gërëm nag waa Leewtoo di leen bëggee di leen ziar mooy euh, kii bi nga xam ne moom léppam lamb la 100 pour cent lamb. ISRA ki ko jiite muy Pape Thialis kooku mooy jënd promoteur yi. de passage maa ngi nuyu Max Mbergane bu muy àndal di liggéey. moo taxawal Tapha Tine Boy Niang. non combat boobu mooy combat jënd yi. mooy combat VIP yi mooy combat boo xam ne lu ne mun na si am ñu ngi nuyu Thialis di ko ziar di ko jox wàccuwaayam man la bëgg Fallou bu grand mbooloo ménageur général bu grand mbooloo namm naa leen maa ngi leen di ziar di leen bëggee di nuyu ñëpp di nuy waa Leewtoo nag. mel ni Leewtoo dafa jëm Joal le 27 mars ak le 28 ci mbapat mu am doole. non mbapat bi gis naa ko ñu koy publicité di ñaan mbër yëpp mbëru VIP yi mbëru nante yi parce que pas Thialis nante la Leewtoo nante la lu mu tëgg ay nante ñoo fa war a ne di ñaan ñëpp ñu ñëw fa ku fa ñëw di nga gis bëre di nga gis bàkku di nga gis cosaan. jaajëf yàlla ñoo jaajëf le grand manager. jaajëf fa tey. njool bu ndaw kay dogale ma yóbbu. Mansour Fall le benjamin des caméramans Ndiol mu ndaw a noonu ñu ngi noonu ci combat préliminaire yi ci poids léger bi combat yu ndaw yaa ngi noonu arbitre ba soufflé na ñoom ñaar ku ci nekk tibb na suuf ñaan ci cay lamb waaw ay ca mañ mu mel ni ñaari combat nga am foofu ña ngay lewaatoo lewaatoo ba dib na maa ngi seen Ibou Ndiaye obli maa ngi seen général Malika maa ngi seen Boy fay di seen Cheikh Tidiane Niang maa ngi seen Touba Kouta le grand champion wante baabu njambaan na nga nele cey lamb ju tey ooy Jax production ñoom ñaar daw nañ roofoo takk na ko ooy daan na ko waaw waaw boobu da na naññ moom Mansour ñi nga jàkkaarloog Abdou ñi ngi lay ziar maa leen di delloo ziar bu baax waa mu ci maa ngi ci jàmm bu baax a baax a baax di kontaan euh, nuyoo ci président Macky Sall laa koy ñëw ci ma euh, ci Matar Ba ñëw ci Bira Sène ñëw ci euh, Manga 2 di leen remercier di leen ñaanal jàmm yéen bi oyof toll lamb dafa neex trop gis nga feebar bi daf fii jóge far force. ba ma duggee ci lamb jeeg léegi ku ma xool yaa ngi reetaan. bilaay walaay xool yëpp a naat ñun yëpp a kontaan Sénégal yëpp a kontaan to li ma la wax ni dee ko xool feebar bi dootoo ko di dëggati day jeex tak parce que ñun lamb lañu xam. moom la ñuy dund ren dem nañu Gambie lu mat ñeenti yoon di jóge fi di paas di dem Gambie ñun làmb dañ ko suñu deret la kon lii dara war ko yàq ma vraiment man kontaan naa trop trop trop di ñaanal sénégalais yi ñu góorgóorlu ci mosit barrière yi ñu wax ñu jàpp ci ñu ñëpp yàlla mosal ñu ci feebar bi ba affaire bi tranquille quoi vraiment kontaan nañu quoi sant sant bu baax na def waaw sant yàlla sant yàlla ñoo leen sant yàlla sant yàlla bu baax sant nañu baax sant yàlla mi ngi nii rek waaw yal def jàmm sama xarit baa ngi sama doomu ndey maa ngi lay ziar Abdou yow lañ tuddee Serigne Abdou Khadr ndeysaan ilimaani Touba wallaay wallaay ilimaanu ilimaani borom wasaare lamba ngi nii ndeysaan ndeysaan mbaa am nga jàmm maa ngi kontaan bu baax a baax a baax tey lan tey lan nga yëg waaw kontaante bi ma dugg see ci làmb dugg si terrain gaal gi gis champion yi bare bare bare dajaloo fi nga gis Boy Faye gis Caaka ah, Faye gis Obali gis Serigne Ndiaye numéro 2 gis Fils de Batlen gis Fils gis Tas Yaakaar ngir Cheikh Tidiane Niang mi nga xamante ne bu dugg see ci làmb ñëpp dañuy kontaan sama xol sedd may ñaanal président Bira Sène yan wi yàlla na woyof yàlla na ci am ndam président euh, ki nga xamante ne mooy mi des sports monsieur Matar Ba ñu ngi koy ñaanal suñu papa la yàlla na yàlla gën a guddal fanam fi mu bëgg a yóbbu ci sport rawatina làmb yàlla na ko fa suñu borom kàttanal dooleel ko ba mu yóbbu fa làmb ndax xam naa ni làmb kontaan nañ tey daal mbay Boucar borom Lutte TV borom bëre simple baa ngi nii. waaw maa ngi nii naan kulu fadrin. non naan yéenay ndaanaan yi. maa ngi lay ziar maa ngi leen di am nga jàmm. waaw maa ngi lay ziar di am jàmm di nuyu Sénégal di rawatina nag mbokku internetu Leewtoo TV rek xam nga di nuyu rek Sénégal yëpp di fi ñaan jàmm di naan vraiment gars yi namoon nañ lii. ñu reprendre compétition yi tey fii ci terrain gaal gi yëg-yëg bi lan la waaw yëg-yëg bi mooy maanaam yëg-yëg bi ñëpp am rek muy bon sentiment de satisfaction boo xamante ni mooy que ne bëggoon nañ làmb ji ubbi parce que avant dara ay amateur la ñu woon di dund làmb rawatina nag tey ñu liggéey si métier bi tey mu nekk suñu gagne-pain kon yaakaar na suñu bëgg-bëggal rek mooy nekk ne làmb ji ubbi mu mel ni làmb dafa suñu cosaan nekk suñu aada ba nga xam ne ñëpp ko bëgg boo seetloo làmb rek nga gis mu nekk branche boo xamante ni tey boo bokk xam nga lamb day dañ ko askanale ministère des sports mais lamb day kenn mënu ko si génne kenn mënu ko génne si culture kon yaakaar naa ne tey lamb moo nekk loo xamante ni tey Sénégal moom la am jéggaani wu ko fenn ñu waroon ko nag préserver waroon ko waroon waroon ko prôner waroon ko dooleel ba mën ko exporter tey boo amoon message booy booy véhiculer amateur yi lan lay doon. waaw mooy rek maanaam rek ñuy ànd ak discipline yar teggin bi ñu daan àndal rek rawatina nag amateur lutte simple mosuñoo yàq lamb waaye di encouragé waat jeunes yi nga xamante ne dañoo bëgg lamb yaakaar si ngir tedd tey tey Modou muy Balla Gaye ba si Eumeu Sène ba si Yékini tey lépp lu ñu am lamb moo lañ ko may tey bu ay président ba si rëg-rëg mi soog a ñoom ñëpp tey lamb moo may li ñu am kon tey nañ gëstuwaat lamb ku si nekk tey xool ni nga mën a def tey ngir gën a suqali ngir gën a doole lamb nga def ko parce que tey lépp lu ñu am lépp nekk lamb moo leen def le 27 mars ak le 28 mars invité naa la Joal waaw invité nga ma Joal nekk sama dëkk foo xamante ne yàgg naa fa dem di naan ne vraiment liggéey bi def tey si lamb tey ñoo koy gis ñoo jaajëf maa ngi lay bëgg ay eh, waay xale baa ngay cosplay Almedia champion champion lii loo ci jublu ay eh, waay champion baa ngi cosplay Almedia xanaa Almedia bi nga bëgg a taal ba mu jeex ay eh, Mansour zumal ma Almedia bi Almedia bi dana jeex de champion ay tegtal la mu ngi kos rek di sànni cay lamba ngi ni lamba dafa bëri ay feem lamb dafa bëri ay tegtal daa oh. mel ni gorosu almet la andi ci lamb ji sax ndaama la Mansour combat bi ñetti ndaama la arbitre bi ndaama la ñaari mbëri ay ndaama lañu wante caméraman bi koy filmer nag njool la reporter bi koy filmer tamit dëgg bi nit la njoolul gàttul <laughs> Mansour reetaan na waaw waaw lamb gi nii ay ca ñoom ñaar xale bi def na deux appuis daanoogul de ooy jël na tànga xaan ma ngi koy ma koy yëkkati lan la bëgg lan la bëgg ooy waay jeex na non jeexul ca biti la ko daane ca biti la ko daane ay ca Mansour ñu dem ci beneen combat bi di leen fàttali ba léegi ñu ngi fii ci tere Gaal gi Jaks production tey jii di le 21 mars 2021 ay ca ay ca ay ca ñaari xale yaa nga ca ma nga koy fàqat xale bi njaab njaabu golo daw génn ca arbitre souffle na jox nañ ko avertissement waaw waaw ay eh, waaye arène nationale la Ngor Ñaax la ñu jàkkaar lool noonu maam Fadi moo ñu wan gannaaw arbitre arbitre ayca mañ déplacé tuuti ayca maam Fadi ak Ngor Ñaax waaw waaw ey lan moo xew foofa diggante Birame Mbissine ak Cheikh Tidiane Niang Ibrahima Mbissine moo ñu wan gannaaw Cheikh Tidiane ñaa la ñu jàkkaar lool ay waay liggéey tey yombul waay général Malika nga ca gannaaw général bu Malika Cheikh Tidiane ñaa ak Ibrahima Mbissine maa ngi seen Babou Njambaan ca biir géew ba muy préparé ayca oh général Malika daan na ko daan na xale bi. on a des gens En tout cas, madame, la solution qui se présente ainsi, on doit encercler la sécurité. Les gens vont essayer maintenant de gérer la situation. sinon, voilà, les, gens qui ont des téléphones là, ils n'ont qu'à arrêter leurs qu'ils font à, l'intérieur. Voilà, Ils ne sont les caméras ils vont faire leur travail. Ça laissez-nous avec le travail, on va gérer. la police. C'est vous. Voilà, mi ngi noonu Mansour kooku mooy président Bira Sène ma ngay waxtaan ak sécurité bi xam nga ne làmb ji fi mu toll nii nag géew bi dafa jaxasoo il faut sécurité bi defaraat affaire yi mi ngi noonu. ay ca njigi noonu ñu delluwaat ca combat ba diggante Cheikh Tidiane Niang ak Birame Mbissine gannaaw ba ñu miita nopp lu tuuti ku ci nekk guux ndox dellu suwaat diggante Cheikh Tidiane Niang ak Birame Mbissine lewaatoo ba dim na attention Cheikh Tidiane Niang Birame Mbissine ay ca mu ngi mu mel ni lamb ji bëri na coow lamb ji bëri na coow wante ñëpp defara leen tax a jóg mel ni amateur dañoo namoon lamb nag wallaahi ne ñëpp defar rek mu yàggee mu jag attention maa la ko wax Cheikh Tidiane ñaa ak Birame Mbissine ñoom ñaar dañoo xamante kenn du bëgg a asaaloo combat bi ñaari technicien lañu ñaari ndaanaan lañu attention ana mbayang lum na na moom tëgg mbayang way ci am na ñaari avertissement léegi attention Cheikh Tidiane moytul moytul temps bi ay ca ñu dellu si ci combat bi Cheikh Tidiane bi Bissine Cheikh Tidiane Birame Bissine attention lan moo xaw fële Mansour xoolal ma jëlal ma loola oh jël am na waaw waaw Babou Njambaan la daan na ko wala daanu ko lu arbitre ba wax mbëru baaw baab la <laughs> mbëru Mansour Fall la <laughs> ay ca ñu ñëwaat ci diggante Birame Bissine ak Cheikh Tidiane Niang est que combat bi jeexee ci décision arbitrale attention wallaay metti na maa la ko wax Cheikh Tidiane Birame Bissine Cheikh Tidiane daw na jël ko tibb na ko ey lan mooy xew Cheikh Tidiane daan na ko Cheikh da koo ndax daan na ko ba toog ci kawam da koo tibb rek daw moom daan ko waaw ay ca ay ca Mansour ñu ba léegi ñu dellu ci poids lourd yi diggante Ibou Ndiaye Obli ak Radiakhé mi ngi noonu Ibou Ndiaye moo bi attention doole doole Modou Anta da koy plaqué da xale bi bañ na takk na ko lan la takk na ko xale bi mën naa bëre de takk na ko Ibou Ndiaye Ibou Ndiaye xew ñun ci combat bi de da koy yëkkati wëlbati. waaw doole. doole doxul jàmm Modou jàmm. ma la ko wax loo bañ ku lëpp doole la ko tegut. wallahi doole ngi noonu kookoy Ibou Ndiaye Obli. wallahi oh ay waay Obli waay. Ah. ay ca arbitre ba soufflé na mbër ba muy bëreel nag laa xoolagul bu baax borom ngem bu borom ngemb bu noir bi Modou Anta takk sangoor bu rouge bi. man mi de kanam gi laa waaye lamp yee ko xañ. mel ni lamp yee ñu ko xañ. waaw mais Toubacouta ca wet ga de. combat poids lourd yi a gaaw de mbottu jolol ña te suuf wër ndomba. Moussa Faye Touba ayca Moussa Faye Toubacouta oh. wër na ko dëpp na ko ma ngay lem loxo ba lan la bëgg Toubacouta jóg na tiimu ko. da koy tibb yëkkati ko ba ca kaw dóor ko ci suuf wala lan lay def ah ma ngi koy dëpp ma koy ruur ah jeex na. daan na ko daan na ko. combat poids lourd yi gaaw na de. waaw ah, maa la ko wax. ay ca caaka noona Mansour Fall caaka nga noona caaka fay alias biram kunkung kan lay bëreel caaka fay moo ñu wan gannaaw doonu ngemboo ngemb bu ñuul bi ma ngay ku rek topp sa waay bu ñu jàppantee rek war na mën a jeex da Modou Anta maa la ko wax da leen ëpp expérience doole moom biis bi dafa bari tur mooy biram kunkung mooy biis bi mooy caaka fay biram kunkung mooy biis bi mooy caaka fay. maa la ko wax. kunkung la dëkk moo tax. waaw. attention ñu ñëwaat ci combat fils de Badlen bi fils de Badlen la ñu jàkkaar lool noonu. ay sa ki ma dendal la may dóor de xanaa yaram yi daal tàng bokk sa waay te nga dem ci biir géew bi maye ko waay waay. mbër du dend ak reporter mbër ca biir géew ba lay nekk attention Fils de Balla jël na ko war na ko ndombo war na ko ndombo oh jël na tànk ba da cay nelaw de xale bi mën naa bëre de laa ilaaha illallaah day ñàkk buddi na ko dóor na ko ci suuf jeex na Fils de Balla daan na ko waay waay waay doole doxul jàmm biram kunkunga nga ca gannaaw to ooy Cheikh Tidiane biram ay ay waay lu xew foofu Modou. Babaag ay waay mu nan daan Babaag erreur am na ci combat bi de. ayca Mansour oh tas yaakaar daan na ko wala ah tas yaakaar lan daan ooy xale bi ko daan moo jëloon moo moo jëloon Johnson la moo jëloon lamb ja Gambi. la bindu waaw moo bindu lese Gambi waaye kii xam nga ne léegi mu dem Lour. tey tey luur la bindu sax dafa mel. waaw ah, moo war parce que nag boo ko xoolee ak bindam macha allah xale la boo xam ne daal lu la waay mën a wax ah daa mel ne ak lawtan la de te bu dee lawtan mën naa dem ca kanam de. ku ko jiitu na ko xaar. waaw lu leer nga wax jar naa bàyyi xel mais maa ngi lay bëggee. jaajëf maa ngi lay delloo bëggee. ayca Mansour Fall. ñu ñëw ci combat boobu le ooy waay waaw waaw dafa mel ni Cheikh Tidiane ma nga ca géew ba Cheikh Tidiane ñaa yaa ngi mbëkkante de biram kunkung nag ab kombaam daan na koo yàgg Cheikh Tidiane ñaar daan de Mansour Cheikh Tidiane daan na ko ma ngay dem jalal ma takk ba Ibou Ndiaye takk nañ ko de génn na ca de ah obli waaw waaw ay ca sama gaay mi ngi noonu combat ba combat ba combat ba commencé na diggante Boy Faye ak général Malika Mansour attention day gaaw de ñoom ñaar daw nañ daje daw nañ ñoom ñaar Boy Faye ak général bu Malika waaw waaw nee naa la combat bi combat arène la attention Boy Faye Boy Faye teq lan mooy xew général Malika def na trois appuis day jóg ay ca général takk na ko général takk na ko arbitre attention général fa mu jàpp baax na général fa caxabal ba sori na attention Boy Faye ma ngi koy caxabal caxabal ba sori na ooy combat ba métti na Boy Faye takk na ko ma ngi koy tagal sees waaw waaw Boy Faye takk na ko day jeex de war na ko ndombo léegi waaw waaw Boy Faye war na ko ndombo général day jéem a génn général day jéem a génn général day jéem a génn mais Boy Faye mu ngi ko bloqué dana génn wala du génn waaw waaw général dana génn dana génn Mouhamed Bousso Boy Faye ak général Malika arbitre soufflé na général Malika génn na géew bi ayca arbitre soufflé waat na penalty boo ko amee da koy dugal penalty kenn ko raté bu la ko dugal ko ci kër gi maa la ko wax ay ca ñu ñëwaat ci combat bi diggante Boy Faye ak général bu Malika combat bu neex ta metti waay général la ñu moo ñu won gannaaw Boy Faye la ñu lool ñoom ñaar daw nañ bopp loolu mooy ndengeñ ñoom ñaar dañoo ndengeñante Boy fay ak général bu Malika waaw waaw Etienne Ngom nuyu naa la bu baax a baax Jili Abdou Khader attention Boy Faye jàpp na de Boy Faye Boy Faye jàpp na attention placage ba eey waay général daan na Boy Faye général Malika daan na Boy Faye oh général Malika daan na Boy Faye Boy fay jommi na da koo plaqué da koo nax caaka fay noonu ca gannaaw caaka caaka fay ak fils de Badlen la o oh! combat bu nar a neex la quart de finale la moom tamit ku daan dem demi-finale caaka fay fils de Badlen amul frère maa lay ziar doomu ndeyu fils de Badlen la caaka fay fils de Badlen wante ba léegi am nañ beneen quart de la léger Ngor ñaax moo fay bëre ey caaka daan na fils de Badlen doole poids ba la ko luur poids ba la ko weer poids ba la ko wér. caaka ndaanaan la dafa diis. caaka ndaanaan la poids poids bee ko daan. fils de Badlen sigi dafa yaakaar naa lam daanee woon caaka la koy daanaatee tey. caaka da ngaa ko doon daw di ko war ndombo rotation la doon def. caaka moo daan caaka moo daan. caaka moo daan fils de Badlen. ayca Ngor ñaax ka muy bëral jël avertissement Cheikh Tidiane dan na oh! ay waay kooko war a bërëk Tyson Franc waaw waaw xalam njaago baa noonu non sa waay <laughs> daa metti rek mais dammoo ko tàllal ko tàllal ko tàllal ko tuuti tàllal ko <laughs> tàllal ko tàllal ko bàyyi bàyyi ko mu tàlli bonkal la Franc daa bëri doole ngi noonu nag lamb ji neex na maas ba sp sp média kontaan na sedd na est-ce que doo dem ci docteur bi mu kiyal la ko biram am naa jàmm na mën nga lamb waaw na mën naa ko trop tey bëgg a ñëw gis gis gaal ga loo kontaan rek nit ñi nuñ bëree fees amateur ñu namee làmb waaw ponkal yi na ñoom caaxa fay simmeeku ama làmb am contentement ga waaw da waaj xol neexul de waaw non parce que lii moom maanaam dafa doy waar quoi xam nga tey bés bu mel nii ak sénégalais yi nuñ namee woon làmb rawatina amateurs yi ñëpp dagg seen ay yitte dagg seen ay billet ñëw pour seetaan xam nga bu ñu sañoon affaire bi su commencé day yegg parce que tamit lii baaxul sax si image yu làmb maanaam dafa am euh, nit bu fekkee li olof naan buñ la séddee ci gaalu xaj moytu ñu fekk la nga di ca lekk loolu doomu aadama bu ne danga ko war a moytu tey dañ na làmb dañoo bëri problème dañoo bëri coow waa làmb di ko bañ di ko weddi kon defe naa ne waa làmb tamit ñoom ñoo war a fexe ba yooyu ñu di ko bañ. yar seen bopp voilà mais lii li ko gën a motiver pour man organisation bi bokk na ci parce que mbooloo mi bëri na. sécurité bi doyul lu mu war a doy. yaakaar na promoteur bi warul woon sóor na mbooloo mi dana bëri ndax amateur yi nam nañu làmb mu andi sécurité bu gën a mat. mais loolu Mbaye Babacar loolu amul ma dem te ñëw kañ lañ gëj a bëree mars daaw ba mars ren ça fait un an kon defe naa tey bu ñu waree bëree xam nga ne fu fu fu fu nitu nekkoon da ngay ñëw kon du xaj fii yaakaar naa nag wax ji pour man dama part waxuma sa arène nationale mais stade Iba Mar Diop la ñu war a ubbi jox waa làmb yenn promoteurs yi di fa tëgg yenn journée yi yenn tey bu doon lii Iba Mar la amee doo ci xalaat dara day yegg mais nag fii moom terrain la boo xam ne miir bi daanu na ñu baase ko à tout moment problème mën na fi am yaa ngi dégg lu ma lay wax te am na loo xam ne tamit defe naa ne war nañ ci gën a bàyyi xel mooy sécurité nit ñi parce que tamit corona lañ. ci insécurité totale la ñu nekk fi mu toll nii. gisoo ñun tey am na loo xam ne ñun. menaces yu ne jot nañ ko fii tey. te ay responsable dañ gis naa sànq ñu joor la aw xeer. waaw non du ci waaw mais yooyu yëpp dañ koy gérer parce que ñun ñoo opté métier bi pour liggéey yaa ngi dégg pour bégal suñu ay soppe kon lépp luñ ci fekk ci ay risques dañ koy accepté mais liñ ciy bañ rek comme li ma doon wax sànq rek man moom ak koo mën a doon mën nañoo négocier lépp mais nag bés boo ma bëggee jaay la ne li mbay ma wan la ne man doomu aadama laa te nit laa. dama bañ bañkat laa. non mais non mais parce que nit du ñàkk fayda man du ma mas laa bañ maasale ma de. jamais au grand jamais du ma ko defal kenn parce que làmb comme li may wax rek man dama see rampé bëgguma di ko wax mais nag tey li tax ma wax ko mooy des fois da ngay gis yoo xam ne ay humiliation wala bëgg la am nuñ lay traité da ngay taxaw bañ ko. sa xol moo jóg non waa man waaw mën na nekk ah. parce que man làmb dama daan yor mille francs dagg ko billet seetaan ko ñibbi si du ma reer làmb sama deret la ne ma bëgg ko muy sama culture du loo xam ne dama xëy nii rek euh, dugg ci nii jamais au grand dama maanaam lu ma dund la quoi kon nag tey su demee nii ñu nekk ci di ci liggéey ça veut dire que dañ ciy joxante cër ñun ñëpp ma respecté la nga respecté ma ñu respecté te ñun ak amateurs yi parce que loolu lañ seex ak promoteurs yi jàmm mën a am ko yaakaar ne organisateurs yi organiser lamba tamit ñuy bàyyil report presse bi fu ñuy toog. waa noo loolu maanaam tey bu organiser te leer la na presse bi day ñëw wara nga prévoir place bu nga xam ne presse bi su ñëwee ñoom fa la ñuy toog pour mën a def seen liggéey normalement mais waruloo rek. parce que tamit bu fekkente ne presse bi dañ leen a bàyyi ñuy tourner gars yi tamit fay seen ay biie billets 3000 francs ak loolu ni mu seere nga ñëw toog ñum nar la baare doo seetaan sa xool day jóg ñoom tamit du ma leen blâmer parce que tamit dañoo fay seen billet pour seetaan làmb kon defe naa day fekk organisateur bi fexe ba moom bu fekkente ne presse bi day dugg mu xool presse bi temps la maanaam nu leen di organiser ba nga xam ne kenn du déranger kenn kii def reportage am ñëw def ko du déranger ki dagg biyeem parce que ñoom ñëpp ku ci ne da nga am sa droit ci làmb ji muy kii reporter muy ki nga xam ne moom mooy dagg biyeem muy kii way kii tëgg te dem nañ def ba benn moment tëggkat yi gisatuñu leen gisatuñu waykat yi su fi nit amoon problème foo koy jaarale ba génnee ko waaw xam nga loolu bu keroog rek rek pajoo xam nga laaxu soow boo ci sottee siga tiga dege ba pare jël ko jaxaso ko dootoo ko xàmme loolu nag defe naa ne nañu lii tey war nañ ci tirer leçon président Manga 2 mi jiite lutte simple ak Bira Sène mi nga xam ne moo jiite CNC bi war nañ tirer ay leçon ci lii ñu xool yan façon organisation la ñuy xel di def ak fu ñuy xel di teg yenn mise yu mag yi pour que suñ ko tegee mu mën a yegg quoi. jaajëf Babacar maa ngi lay bëggee. di bëggee waa Leewtoo yëpp. di wax seen DG nag ne ko man li may wax bu leen ko dagg de Pape calis fay laay waxal bu leen ko dagg na leer dama ko woo jëluma xam nga lu ma koy doyee interview laa lay doyee calis parce que yaa tëgg làmb Joal yaa fa teg xaalis tëgg tafaatin booy ñaa te ku bindoo ni tama ñu tëggale ñaari boor man interview laa lay doyee ñu waxtaan ci làmb lii nag bu leen ko dagg s'il vous plaît na ko dégg. <laughs> yóbbante ak la voilà leer. tey ak maa ngi bëggee waa Leewtoo yëpp. man lant ndoor laa duma tey ak diw. yaa xam naa la bawal bawal nga. maa ngi nuyu ñoom Ayda Diouf ñoom Matu tonton Diaw. képp ku fa ne maa ngi bëggee ñëpp la jàmm yàgg a jëf yaa ngi noonu nag lamb ji neex na maas ba SP média kontaan na sedd na est que doo dem ci docteur bi mu kiyal ko maga général Malika Toubacouta attention Mansour ñoom ñaar daw nañ daje ay ca Toubacouta ay mboot na ko ay général daan ko général daan na Toubacouta général Malika daan na Toubacouta intérêt ak kan internet Badara internet mooy bëre kan mooy bëre Cheikh Diagne Badara internet ak Cheikh Diagne demi-finale lese oh loolu combat la eh lan moo Badara internet ak Cheikh Diouf ay ah, bu na ko door na ko suuf daan ko ay la ko wax. fii ci terrain gaal ak Leewtoo TV. ñaari TV la ñoo bokk ndey ñoo bokk bay. waaw noonu la fa Jam Teeri mu ngi dëkk Pointe Sarène ci wetu Joal. waaw ci département de mm-hmm. waaw guy gi mu ngi dëkk Gagnic côté Kaolack la bàyyeekoo. guy gi Gagnic la jógee. ndeysaan. ca côté Kaolack ndangaan. na. la fa demee ñoom ñaar kenn démérité wul. waaw Modou Jam Terry Modou Jam Terry maa la ko wax da koy assuré demi-finale léger Modou Jam Terry attention eh lan moo xew suru xal na ko daan na ko de Modou daan na ko de. gannaaw ba ñu noppaloo ndaan ndox ñëwaat nañu Cheikh Tidiane ñaa caako fay. arbitre ba soufflé na ah, na leen bëre leen waaw waaw Cheikh Tidiane Niang Thiaka Faye Mansour bàyyil xel beneen combat bi Mansour combat général Malika bi waaw waaw Layob the King bëgg naa la DJ Malika ak Ibou Obli arbitre baa ngay wax ak ñoom beneen côté ba yaa ngay am Cheikh Tidiane Niang ak Thiaka Faye waaw waaw xalaat naa ko nag Ibou njaay Obli général Malika Cheikh Tidiane Niang Thiaka Faye karadaas baa ngi noonu ñoom ñeent ñoo ñoo des ci luur yi attention ey caaka jël na tànk bi léegi xale bi rasu génn caaka yootu na tànk bi Cheikh Tidiane xajal ko attention général Malika Ibou Ndiaye ey Ibou Ndiaye dafa diis ah Ibou Ndiaye dafa diis waaw waaw. ay ca waaw mais policiers yi duñu xajal ñoom waaw waaw général Malika Ibou obli mais chef Ibou obli ca Ibou obli général Malika waaw waaw Cheikh Tidiane ñaa caaka fay mi ngi noonu général Malika Ibou Ndiaye Obli mu nekk ay demi-finale yu neex ay combat ya xam ne combat calcul la attention Tidiane am na ngemb caaka nga yootu mais jàppagul ba pare ndengeñ ko Lamine gis nga gis nga Cheikh Tidiane fa mu ndengeñ loolu fee moom la bu la defee ni des fois mu xëcc la war la ndomb wala mu xëcc la nga ñëw mu caxabal la ndeysaan ko koy Cheikh Tidiane ñaa lii fooram la mais Bussalé dafa diis mais eh, caaka caaka dafa diis waaw gis nga fam ko fam ko kor fam ko kor ci kaw am na nu muy defee mu ma Modou Jam Teri Cheikh Diagne Cheikh Diagne daan na Modou Jam Teri Cheikh alias bis bi ñetti tur nga am lu war a ñetti tur yi waaw yëpp gars yi la rek xam nga gars yi moom booy pourvé dañuy yokk rek du ñu wàññi nga bëre ba ñëw ba final waaw sant yàlla rek mënuma ñu ma daan tamit xëy na suma rek moo si nekk rek waaw nooy waajale final bi waa comme ni ma waajal yëpp rek di ñaan yàlla mu may ma ma gagné lambu ji waaw parce que loolu laa bëgg waaw ñu gëjoon gis tey nga ñëw andiwaat leneen lu bees waaw ñun chaque jour si liggéey lañ nekk fépp fu ñu mën a nekk ñu ngi concentré ci suñu liggéey waaw. loo yóbbante loo yóbbante loo yóbbante ki ngay bëre. waaw sport la rek champion la moom tamit parce que mbër yu bari woon nañ kon buñ ñëwee ba final yaakaar naa ne. yaa ngeen a bëre général Malick. bëre nañu lu bari maa ëpp li ma ko daan mais maa ngi ñaan yàlla mu may ma ma daanaat ko tey. ñaata yoon ngeen bëre. bari na est ce que matul fois daan naa ko six fois gagné na ma deux fois daan na ma deux fois gagné ma par point benn yoon. jaajëf ci kanam merci beaucoup doomu ndeyu Mansour Fall doomu ndeyu Ndeye Mbacke o oh, Mansour Mansour sa maa ngi def ay débat débam Malika ziar naa la mbaam nga jàmm ayca ayca demal ñëw ziaraat. champion ziar naa la. waaw waaw doon bu baax. mbaam nga jàmm. am naa jàmm bu baax a baax. yàlla may ma waaw waaw bilaa xam nga lu ma ci làmb looloo ma may kon loolu mënu ma koo dafa nekk ci sama deret la quoi mhm. waaw léegi léegi waaw. gis nga génne ay la looloo gën a tuuti xam nga rek ñun ay mbër lañ waaw. xar final bi acca Malick. général Malika final lourd baa noonu diggante général Malika. ak Caaka Fay alias Biram Kunkung wala biis bi tey ji ñu ngi fii ci terrain Gaal Gui tey di dimanche le 21 mars 2021 gannaaw ba làmb toogee lu tolloog at tëggul mbër yi bërewuñu tey ji ñu reprendre li nga xamante ne bii mooy jongante yi commencé waat ko fii ci terrain Gaal Gui diggante Biram Kunkung ak ki nga xamante ne bii général Malika Biram Kunkung waaw waaw Ouzin Wassare Lamb nuyu naa la mbaam nga jàmm fay naa la bu baax a baax soo gisee lamb ji sénégalais yi dañoo namoon lamb sëñ Babacar dañ namoon moo tax gis nga li fi jot a xew lépp jàmm rek a fi xaj. jaajëf Ouzin borom Leewtoo TV borom borom wasaare lamb waaye man Leewtoo waay ay waay man ak Leewtoo su may nelaw sax Leewtoo lay wax ñoom ñaar dañuy dégluwante dañuy naxante diggante Caaka Fay la ak général bu Malika waaw waaw Mansour kontaan naa ca loola ngay def de yàlla na jàmm yàgg bac atteex taaliba sëriñ atteex Mbàkke maa ngi laa ziar Moussa fay làmb ji fële ca Brésil kontaane naa la di nuyu Aliou Sène borom say jaamaane production foofu ci almaañ ku bëgg làmb ngi noonu diaspora bi yëpp nuyu naa leen waaw waaw ñu ngi fii ci terrain gaal gi Thiaka Faye général bu Malika waaw waaw du yomb de maa la ko wax Thiaka Thiaka luur la nag général Malika tamit luur la attention Caaka Faye général Malika attention Caaka jàpp na loxo bi xëccu ko ñu tegante bopp ñoom ñaar tegante nañ bopp attention Caaka jël na tànk ba ma ngi koy plaqué war na ko ndombo général daan Caaka général mboot